léegi dama dégg benn waxtaan ngay wax ci baajo kamara ak soxnaam ngay expliquer ne soxnaam boobu xaw ma day gis xaw ma na bàyyi xel loolu ngirum Badio kamara da nga ci amul yaakaar. non xam nga man damay dimbali nit. ñu bëri dañoo defe ne damay nappaate wala damay lii billaahi wa yow xam nga ma sax seex man jërul sax ma lay wax man nappaate wu ma bëgguma ku ma gëm man boo ñëwoon fii di ma gëm di ma raamal man duñ mën a def man li ma bëgg mooy bu ma waxee nga weddi ma ñu xuloo wala nu mën a toog ànd fii dem jënd suñ beñ dugub ànd ñëw lekk ma toog ci buntu kër bi man loolu laay dund dund may yii gars yi di dund nii man dund ma ko waaw parce que damaa xam ne ñi yilif am na nañu yilif waxoon waxoon di xeex ba yilif Sénégal kuy sëqat tàggu leen bi biñ dee dañ leen a suul sax yi lekk leen mm. voilà ki yilifoon Kajoor mm. kuy dee kuy sëqat tàggu ko ak gënoon a échec ci Kajoor soo demee seen ñaari bàmmeel yaa dend ñoom ñaar ñëpp dee nañ ñu suul leen rek adduna yooyu man yi nekk ni ko ma ci mm. vraiment man yooyu nit ñi nekk nekkuma ci. Mm-hmm. man lan nga mën a wax ci cas Imam Ndao benn affaire gis nga gaaj baajo kamara li ma ko wax dégg na ko nag. dégg na ko xam na ah li ma jàpp nit de moom bu dee li ma wax ci réew mi de mënuñu ko wax mënu ma ko wax trois cent mille personnes seetaan ko te déggoo ko loolu moom mënta ne ndax sa mbokk ko dégg baa nga dégg. Mm. te du ma de. Mm. ndax li ma wax man xam naa ko. Mm. ci baatin nag laa ko teg bu leer. waaw man xawuma ko mosuma fato xanaa wala internet. am na ñaari jabar. te ba wax sax ci mbiram dafa yàgg. parce que ki may wax man. Hmm. ki ma lay wax ñaareelam la. Hmm. waaw. ngi sëy ba tey. waaw su ma lay xëy sax ma ne la. Hmm. am nañ doom benn doom la ñuy am ci àdduna te jigéen lay nekk. ah amaguñ doom. am nañ ah, ah, ko waaw duñ amaat bu ko amaatee na ñëw rendi ma. Ah? waaw. dafa dama la li ma la wax xam-xam la boo xam ne man dama koo jàngi xam ko di ma liggéey di ci pratiquer. Hmm. lu ma la ci lu ma la ci tegal nii ne la lii nii la noonu la du affaire nag nekk yàllaa ay yàllaa xam luy xew ak du loolu. Hmm. ñëpp xam nañ ne deux mille deux mille vingt trois dix euh, euh, huit dix sa dix huit dix huit safar. Hmm. fii day xumb day bëri oto. kooku aajewut gi yàgg yàgg ci réew mi la. waaw ah non. <laughs> ku ne bis boos <laughs> non 18 safar. 18 safar billaahi fii day fees da lekk oto bari na. <laughs> kenn mënu ci dara. bis boo ñëwoon gis koo xam ne xamut luy taw nga gis muy taw nga ne ko fii ci fan ñax mi day sax. bu saxee naan sa yaam xam-xam fekk déedéet <laughs> moo xamut lii nga xam ko rek. affaire bi du doon yàlla du doon yonant nun danaa am lu nuy def loo xam ne dañ koo jàng mm. ay siifur la pratiquer wird zikar di ko tak di ci gis liñ ciy gis di ko wax du caagi ne nag dañoo doon yàlla doonunu yàlla mm. dañuy dem ci duus bii mm. dañuy nelaw di dem ci jigéen ñi. di lekk di naan di def lépp. lu nit di def di fàtte di fàttali ko. ah waaw waaw bu suñ téléphone bu bi ànd booy ñëw na fii barki de mu ne ma sama dañoo sàcc sama euh, damaa jaay ndaamaraas ba mu ba jeex ma teg ko ñu sàcc ko cinquante mille ma ne ko booy mu ne ah, ma ne ko man buñ sama cinquante mille damay perte. demal de boo liggéeyaatee ba ma may ko cinquante mille nag boo da koy denc fu wóor. Uh. waaye buñ ko tojee moom. Uh. nga naan suñ baala wax ci man ñii bu ma sàgganee bañ sàcc ma ñàkk naa ko ay nit lañ duñ yàlla bàyyi li ngeen def. voilà. waaw moom moo doon wax tamit nekk almet du duñ ci bind incha allah day tàkk ko incha allah wax boobu moom du <laughs> Cheikh Bara Ndiaye li wax ci ba mbirum imam ndaw nag laa bëgg a kii. am na waaju àndoon ak ab sëriñam. dem ca Amérique. Hmm. sëñ bi dégg bu ne tëll jub bunt yi rek bunt yi ne kërës mu defee ne baatin la moom. <laughs> mu sëñ bi nekk te waa réew mi lay nëbbatu moom bi mu ñëwee fii bunt yi sax bu leen jubee ñu tijji ko. <laughs> sëñ bi la ko teg place am bala da xamul ne loolu noonu la demee rek ah. waaw ah. léegi nag moom affaire bi noonu la demee moom loolu la tollool cim xelam mais ñun li ñuy wax nii du dara dara waaw hmm. chiffre dafa am yow yaa ngi nii da ngay tëdd gént dara xëy suba gis ko hmm. loolu lu mu doon ah. voilà dangay toog fii jékki-jékki xalaat seex taalif mu wala téléphone hmm. nit day feebar nga ne day dee mu dee sa xel moo la koy wax nit dafa am baatin ci boppam soo demee di zikar di tajjiliyaat di defal sa bopp di tajjiliyaat yàlla ji nekk ci sa biir day dem ba loolu day màgg ci yow da ngay xam lii xew suba te doo yàlla doo yonantu boo puubut da dee léegi hmm. waaye nag dafa am loo yee ci sa jëmm loo xam ne mindaan mi nekk ci kër gi man dama koy wax hmm. sëriñ bi toog nit ñi di ko rang hmm. li muy def bu ko bon bi nekk ci sa waañam wee bu ñëwoon saa bu koy sëñ bi def ñu ànd ko bu yàggee ñuy rang bon bi nit la yàlla bind ni mu ko bindee noonu la ko bindee ñëpp ay gént amul ku dul gént ñëpp ay xalaat ñëpp ay jeeneer loolu noonu ngay gis nag ci sa ruux la installé wu. soo dee tudd yàlla di moytandiku bàkkaar di def yenn yi pratique yi di di di lekk lu lew day dem ba loolu day yeewu ci yow. Mm-hmm. bu yeewoo ci yow yaa ngi dégg dangay ngay jékki di xam luy xew suba.